Baye Mandione Junior ak Fourrière Fourrière moo ñu wan ginnaaw Baye Mandione Junior moo ñu wan kanam ma nga ko door na ko mu daanu tërëf na boof na ko boof na ko tooj na ko tooj na ko eh, quatre appuis Baye Mandione daar na Fourrière Baye Mandione moo daan furier Mandione moo daan Fourrière Baye na Fourrière door na ko mu tërëf

le petit frère et le grand frère. dama taxaw pour jël ko liggéey liggéey caaxaanuma. combat bi cee indi doole doole def cee feeñ. bu doon suba ba ba suba du ma sonn. maa sant Baay Karim bu baax. sant Caaray. sama papa dafa génn àdduna sama yaay. jàppale leen ma ma wax. waaw manqué ma papa manqué ma yaa li may defal sardu ma ko fay. yàlla ko yàlla la. waaw. ñoo bokk ndey baay maam ma jox kër kii wallaahi. bravo waay. dëgg la waaw ndeysaan mënul wax. xolam tooy.